mbokk yi ñu ngi fii ci stade Iba Mar Diop comme nañ koy defee saa su ne bu lamb muy dimanche wala samedi wala jour ma ànd ak ak la télévision Futurs Médias ñu fas yéene ñëw ci stade bi kan lañ fi boole tey booy yëmbal ak ki nga xam ne nii mooy xale bi dëkk Géejawaay bu bëree mu neex bu feccee mu neex nga xam ne nii kat moo la fi woo petit production kon nga xam ne tey lamb dekkeeti na fii ci stade Iba Mar Diop ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen bu jot wala samedi bu jot wala saabu lamb amee ci la télévision Futurs Boy Plateau Aline Diagne ñoom ñaar ñu ngi lewantoo Boy Plateau Boy Plateau jël na Boy Plateau door na moo ngem boo ngem lu vert weex Boy Plateau dox na Boy Plateau Yanda yanda booy plateau daan na yanda dafa daw dàq ko tërëf da koo daan dàq mu tërëf ndërmeelu booy plateau daan na yanda sama xarit maa ngi koy nuyu ñoom ñaar birigal gànjaay gànjaay jiita tànku ndeyjoor birigal jiita tànku càmmoñ neuvième combat de la soirée bii mooy neuvième combat de la soirée combat spécial Ibou Diop a koy indi ndeysaan moo daan bëre di lok loolee mu daan lok moom Ibou Diop digganteem ak Mbalax digganteem ak Baboy Iba Mar fi ñu jàkkaarlool digganteem ak Boy Kayre takkusaan ne Ibou Diop mi koy indi na ko fi nu teewe ko fekke ko ndeysaan nekk ay tuut tànk ndaysaan loo nekku taalibeem doo nekk sëriñam ñoom ñaar birigal gànjaay gànjaay direku moo ngemu ngemu jalaali moom gànjaay birigal birigal doon na daw génn gañ jàppante eh gànjaay diim nga de woyo jël nga ku door na ko mu daanu ku manto birigal bul door da koo dóor mu daanu da koo dóor mu daanu Brigeul dóor na ci Gandiaye mu daanu Ibou Diop a koy indi Ibou Diop a koy indi Petit bii mooy sa deuxième journée non bi mooy sa troisième journée waaw ci diggante kan ak kan diggante boo yëmbal ak mbay mi mais lépp damay sant yàlla parce que jóge ci Arafas qualifié jóge wuñ bu Ngor ak Thiatou Rebeuss war a jëmaat ci diggante Siteu bu Ngor ak bee bis bi lépp maay sant yàlla samay mbokk samay am di jàmm sant sama waa dëkk waa di sant sama waa dëkk waa Ngor Aliou waa Bambey waa Touba waa Gossas waa Médina bi samay xarit Fallou Fall ñu gën ko xam ci Galzo maa ngi dëkk Sarr 7 kilomètres de Bambey route la yow yéen da ñu war a jàppale parce que ñun ay xel la si lamb père père ñu duñu yokk lam ñu wàññiwul lamb état daa war a jàpp ci lamb parce que xale yi ñoo ngi nekk sommet du sonn di jël gaal dem bu ñu investir toog ci réew mi liggéey dara ci parce que ñun amuñu sax vingt ans jël ay millions ko investir ci lamb waaw di sant ñëpp allez nga dem si gaal yi ngay investir sa sa ñetti dërëm sa boy sa daqaar ci tëgg waaw loolu laay wax quoi sant sama yaay sant sama xaw baax a baax a baax sant ñëpp ñi may jaayal sant sama xarit Modou Pouy sant naa ñëpp ñi may jàppe président Omar Sow Moussa Niang pare bi sant naa ñëpp naa ñëpp waaw foo jëmaat maa jëm déwén laa jëm ci diggante Siteu Ngor ak Bébé am na combat yu mag yu may dox incha allah fee dama bëggoon ne sama ma xale laa pare ma sax da ngay ñëw ci télé bu mag nag maa ñëw dama ñëw teefe papa ñu sunduur mu dalal ñu ñu lay xel lan ñëw sa bisu rak sa xarit muy petit waa tey petit moo xewle suñu rak suñu xarit yaakaar naa dëkk Bawol dëkk mooy Alioune Sy ñu dëkk Lambaye kon bu xewlee dañu war a bàyyi ñu yëpp ñëw teew soutenir ko en tant que frère ndax wax dëgg yàlla suñu frère la day nit day jàmbaar ci li muy def kon vraiment day jar ñu bàyyi ñuy def pour ñëw soutenir ko. tey ñu tuddee la bis bi. Moussa Niang. Moussa Niang. waaw Moussa la bis bi. na force délégation ñëw tey loo euh, sentiment de satisfaction. amaat aussi sentiment de fierté tey bu ma gisee suñu tradition suñu culture ñu joxaat ko image bi dama amaat leneen loo xam moom laa yëgaat ma gis ñi ndaw ñu aussi ñu fonk sport lañ parce que dañuy wax ni un corps sain dans un un esprit sain dans un corps sain te loolu nag bu ñu gisee jeunes yi ñu épanouir ci làmb ñu suñu xel day gën a dal waaye li leen di ñaaxee rek mooy bu jamais buñ nangu ñu leen di utiliser comme des nervis ci ay situation de violence ak ay situation de manifestation ak yeneen yoo xam ni dafay sappe li nga xam ni moom mooy euh, vision bi nga xam moom la nit ñi amoon ci ñoom waaye lii nga xam ni tey mooy làmb dafa nekk loo xam ni vecteur de développement la parce que ku bëgg a jaay sa produit ci ngay jaar ku bëgg a def sa marketing ci ngay jaar boo bëggee jaay sa image tam ci ngay jaar kon ñi ngi ñaan yàlla petit mi nga xam ni jeune la bëgg a jàppale ndaw ñi am initiative am créativité sponsor yi ñëw wuyu si ko acteur politique ñëw wuyu si ko acteur de développement yi ñëw jàppale ko si li def. ñoo àndal sa soxna nga àndal. waaw soxna si laa àndal. soxna si nga àndal waaw. soxna si. maa leen di fay. yaa ngi ànd ak monsieur bi. waa gis nga loo yëg. kontaan rek kontaan macha allah jàppale ko ci bis bi rek. suuf la na vingt heures dix minutes stade Iba Mbathie numéro 2 Boy Yeumbeul Petit Production woonu fii ñoom ñaar ñoom ñaar ñu lewanto ñoom ñaar Boy Yeumbeul Mbathie numéro 2 moo ngembo ngemb lu weex li moo nu féete càmmoñ Boy Yeumbeul moo ngembo ngemb lu ñuul li feete nañu doon takk takku ndam përeguñ di càmmoñ bu takk ci téere bu xong dërëj bopp bi ngi rig regal tànk yi saxal dem ci ama neex noonu la doon def saa yëmbal a ngi toog xaw ma boo yëmbal xaw ma saa yëmbal mbay tin numéro 2 jiital tànku ndi joor saa yëmbal jiital tànku ndi joor nee na ñaari mbër yaa ngi lewanto ñoom ñaar ngi lewanto mbay tiin boo ñoom ñaar si digg géew bi boo yëmbal la ngay war mbay tiin boo yëmbal ñoom ñaar seen loxo yaa ngi jóge a wàcc rek léew too Mbaye Tine Boy Yeumbeul ñu ngi leewtoo Mbaye Tine Boy Tine Boy Yeumbeul jël na Mbaye Tine sàcc na ama neex lay indi dëgg ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ñu ngi leewtoo Mbaye Tine Boy Yeumbeul ñoom ñaar ñu ngi leewtoo Mbaye wàcc na ma toog ci tànk ñoom ñaar ñëpp a takk dàkku ndama Mbaye Tine jiital tànku ndi joor Boy Yeumbeul na ko jël na Mbaye Tine Boy na Mbaye Tine billet bee 10 doole bàyyil tànk bi li lay naqari tànk la koy teg Boy Yeumbeul seetaatal weneen feem Mbaye Tine Boy Yeumbeul jàppante Mbaye Tine Boy Yeumbeul jàppante nañu Boy moo nu wan ginnaaw Boy Yeumbeul a ngi dóor Boy Yeumbeul a ngi dóor wala nga ñàkk bopp yi la bëgg a dugal Mbaye Tine Boy Yeumbeul boppam nga béyi galaas Boy Yeumbeul moo njëkk nii wan nu ginnaaw waaye moom tànk lay wër bi tànkaat du laal bii bii da koy gaañ Boy Yeumbeul Mbaye ñoom ñaar booy yëmbal jàpp na ci sengoor yi waaye Mbaye loxo ma ngi ci ngembul booy yëmbal booy yëmbal Mbaye Tine esa jom Iba Mar Diop petit production woonu fi xele bu yaru bu dëkk Bawal ñoom ñaar jàppante ñu ngi bëre booy yëmbal ku nekka ngi ni wut faay bu sa morom def daan la ñoom ñaar Mbaye boo yëmbal Mbaye Tine na wat ginnaaw ngemba ngemb lu weex li lu ñuul boo yëmbal a ngi door ci suuf ñoom ñaar boo yëmbal Mbaye Tine loxo loxo càmmoñ baa ngi ci ngembal boo yëmbal moom Mbaye waaye booy boo yëmbal nga ko mbaar boo yëmbal sa moom wóoru de mbaa sa jën duñ ko fàq boo yëmbal li muy lijjanti bara bee la sonal bara mbaytin bi laa ilaaha illallaah takk na ko takk na ko boo yëmbal boo yëmbal mbaytin daan ko mbokk yi fii ci stade Iba Mar Diop ci diggante mbaytin ak boo yëmbal ku fi woon Petit production ma àndoon ak Aline Diagne ñu seggal leen combat yi waxtaan ak gars yi waxtaan ak pare yi faram fàcce leen làmb yi roof kalma busulu galgal ni mbër yi def ni mbër yi koy indil fii ci télévision Futurs Médias seen xarit Cheikh Ndiaye àndoon ak Aline ci caméra bi jox rendez ci beneen làmb dimanche wala samedi wala lamb saa bu amee ñu ànd ak yéen jëlal leen ko noonu lay demee saa su ne ak la télévision Futurs Médias dara du lewet ak équipe bu dynamique ba beneen yoon mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy toppal télévision Futurs Médias ñu ngi fii ci géej gi nga xam ne nag mooy nekk euh, parcelle nekk unité 15 lan moo nu fi indi champion nu fi indi kan moo nu fi indi promoteur nu fi indi muy ki nga xam ne mooy Jamaïcain boole ñaari ndaanaan ñaari champion kanak kan la boole Gora Sock boole ko Fils Balla tey nañu ñëw jël si nag li nga xam ne nii mooy entraînement euh, ki nga xam ne mooy Gora Sock mu ngi fii jàmbaar Wrestling euh, euh, cent pour cent parcelle gis nga ne ñu ngi préparé nii ñoom ñëpp ñu ngi nii entraîné ba toog dañoo fas yéene dugg ci biir rek laaj gars yi góor a sook ak ki nga xam ne mooy Fils de la nu ñu fas yéenee bëree la 14 jamaïcain woonuñ ci fële ci arène national man da xaadim ci caméra bi ñu fas yéenee waxtaan ak amateur ak amatrice yi ak ñi nga xam ne ñooy seetaan li nga xam ne moom la entraînement di jariñ ci géej gi ñu ngi si wetu géej gi taq rib maa ngi lay nuyu yéen ñi yow mi ma dékk micro bi ak waa ji di ma caméra xaadim xaadim leen wax ni ñun lu ñu lu ñu war a waaj yëpp waaj nañ ko bu fekkee ni entraînement mooy daan Fils de hmm. góor soog pare na ah. waaw ndax ñun góor soog mi ñu gis ah namoon nañ ko trop nag waaye mais góor soog mi gis mi dal na suñu xel trop. Balla Gaye de indi fils de Balla. waaw ah. ngeen jàkkaarloo moom arène muy dem di ñëw di ko suti bi teel nan la leen di def waa. parce que ngeen loolu billaahi wallaahi Balla Gaye de. Balla gay de mi indi fi sa baal. Ah. jour boobu andee bu bu ñëwoon moom ba góor soog da koy daan. Ah. waaw kon am ngeen confiance si góor soog daal. sunu sunu confiance. romb na fii sa baal. seen champion tey nan ngeen ko préparé mu war a daje ki nga xam ne mooy fils de Balla. auzu a mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñuy sant suñu waajur. waa di pare comme ni ñu daan pare rek ñun moom làmb pare nañ combat bu ne. Mm-hmm. pare combat moom wax dëgg yàlla instant yi jaaxalatuñu. adversaire yi ñu préparé Fils de Balla moo ci gën a ndaw yow xam nga làmb. xam nga mais Balla Gaye ko indi de. bu la dëgër ñëwul ak guy gi sax duñ bëreek moom ndax moom kese dañ ko xeeb. ci làmb ji di ñëw. dañ koo xeeb ci làmb ji moom kese bu la dëgër ñëwul Balla Gaye ñëwul giri ñëw kii ñëwul guy gi duñ bëree moom. 100 pour cent géej waay 100 pour cent parcelle tàmm nañoo daje de. non 100 pour cent bi ñoom ñoo ko def 100 pour cent rek mais xam nga ne ñooñu moom ñu ak ñoom du làmb sax. Ah. Fils de Balla kay fii la ko waxee moom moom du moom moo ñu tax a jóg yow xam nga làmb père Fils de Balla góor soog du moroomam adversaires yi ñu bëreel bëreewul ak ñoom góor a combat yi mu am fii ko mais man xaw ma dafa bokk ak Mati Thiam dogo xaw ma nu mu demee noonu moom day wax rek loolu mo problème bi quoi loolu moo ko def combat coow lu bari hmm. kese moo ko def combat mais duñ moroomam ci dara. nag bu mag la góor a nag bu mag la du nag bu ndaw. góor a nag bu mag la nag bu ngande ngande bi xanaa xamoo ko góor a la. xoolal fii xoolal fii. bébé bal fi sa balla day xaar. day xaar amul mbooloo amul xaalis. affaire bi suuf ñun dañuy mbayaar waaye kooku di jeeg fi sa bala ñun dañuy moroomam. nañu may jeeg la. wax xool xool xam nga fi sa bala barki Seydina mu xamee ñoo la gën a dekk waxa fuuf ñu ne yéen ñoo bokk yoon bu ñuy ñibbi si rond-point bi du yomb. rond-point bi du yomb rond-point bi du yomb ñu ne ñoom. billaay wallaay ñoo xamoon fuuf. maanaam jën bu ndaw la daal. laa ilaaha illallah muhammadu rasulullahi góor soo la xëy daal. mais mais mais Balla Gaye ko indi de. numéro 2. nga ne moo koy indi Balla Gaye bu indaale ngemb ñu quoi yow Balla Gaye ma ko bëgguma ko wax loo xam. la 14 daal lu ñëwee. Balla Gaye bu ñëwee maam góor soog tëral ko ci stade bi barki alxuraanu ko ne. géejewaay ah, pour cent pas géejewaay. dama ne géejewaay ku ñëw. ñu tëral la barki alxuraan ñoo leen mën fuuf góor soog li muy liggéey daa xaj ci fii sa baal fii sa baal duñu moroom c'est que lamb moo tëral di rek moo doy waar rek barki alxuraan. kon nga jox gars yi rendez-vous la 14. arène nationale la 14 maanaam nañ indaale ñun ay mbaaya rër na ñun dañuy mbaaya dañuy kàtt xaalis mooy suñu liggéey ñun mooy suñu liggéey dañuy kàtt xaalis maanaam fi sa baal lu ñu indi ñoom lu ñu indi bu la neex ñu indi seen kër yi seen caabi oto. maanaam ñu teg ko ngeen baaw baawuñu dara barki alxuraanu karim lépp nañuy lekk barki alxuraan lépp lépp lekk lépp. lépp nañuy la karoos incha allah di vaar am na. billaahi góor ta doxee daan barki alxuraan moo ko fu la moo doy waar rek. bés bi dañ cee ñëw pour wane a bopp. te la 14 incha allah fi sa baal dina xam ne nag bu jëm seeraas la ñaaw dee rafet dee. maanaam jarul mu yóbbu yi béjjën. Balla Gaye koy indi ngeental muus. ku ci ku ci ndawtal jinax rek def nga li la war. Ah, sa Thiès a ko indi de. bu soobee suñu borom Sa Thiès moomu. Ah. Sa ah. dañoo bëgg comme li kii wax. na guy gi ñëw ñoom ñëpp lañ def. 100 pour cent ñëw 100 ñoom ñëpp lañ soxla. 100 pour cent parcelle ñooñu ñëpp lañ soxla. góor a soog du moromu fii sa Balla. Eh, ay école lañ bokk rek mais bokkuñu classe. kon leen boole. mais ñi ngi woo ñëpp nag ndax ñoo bëgg incha allah combat bi def ci mobilisation bu am solo di woo parcelle 1 ba 26 Cambérène di woo suñu mbokk mbawar mboor yi ñëpp ndax Fils de Balla daf ñu défier nee na mboor mboor yi mënuñu mënuñu dara ci réew mi tam réew mi bu doon jaay mboor mboor yi jënd ko. Fils de Balla dañoo sonn si moom xam nga moo ñu metti hmm. maanaam wax ju muy wax di ratatati rek. Fils de a day ngal ngal yi di wax rek mais Fils de Balla ndaanaan la. barki Seydou Naa Mouhamed sa waay bu ko jàppee da koy daan xoolal am na. barki alxuraanu karim góor da koy daan. vaar am na. xoolal billaahi da koy daan. ah Balla Gaye koy barki si Balla Gaye Balla Gaye koy numéro 2. Eh, la 14. fii sa baal xam nga lan la. Ah. robe mariage. taaral bis kese la taaral bis ak wax xam man la moo métti si fils Balla ah. ratatati gi Balla ngir yàlla war a suuli sa ratatati gi ko ñun sonn si yow barki alxuraanu karim rus naa caméra yi ñoo jox ko rendez-vous la 14. arène nationale lu ko record barki Seydina Mouhamed boo ñëwee si stade bi génn si ñun. Ah. dinañ def stade bi lu musul am père. dina fees dell. xeexuñu xuloowuñu xola dañuy ñëw taaral stade bi bëre daan dem ñibbi. Gora Sock tey yaa ngi ànd ak say mbokk ànd ak say xarit ànd ak waa écrit jàmbaar wrestling war a daje ki nga xam ne nii mooy xale bi nga xam ne nii géejawaay lay takkee. cent pour cent parcelle cent pour cent géejawaay tey Gora nan nga préparé ki nga xam ne nii mooy Fils de Balla. waaw ah, maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur sant fépp mboor mboor nekk rek ak doomu parcelle ak doomu Cambérène di wax gis naa nu ñu bëggee combat mais man mi koy bëre maa ngi ko gën a bëgg. yaa ngi ko gën a bëgg. waaw maa ngi a bëgg. wax ji moo ci bari rek la 14 août bu génne suñu diggante lay xam ne combat méttiwul ci man ci moom lu métti. mais la 14 août fils de Balla ànd ak Balla Gaye numéro 2 mu war ko suti biteel 100 pour cent Guédiawaye 100 pour cent passé est-ce que loolu mën nga ko dégg. Balla Gaye numéro 2 mooy kan xanaa du yëpp maa ngi mbër la comme man. dama affiche la ci làmb de. affiche lan fii ñëpp ay affiche dañ ñoo war a gëm boo xam ne loolu lañ mën lañ mën ëpp doole ëpp ñu dara ëpp ñuy mbokk mbër nañ comme ñun man gëw ma yooyu. mais est-ce que xam nga Fils de Balla góor a. dama ni ngay wax ak moom. man dama la 14. bar bi suñ génn suñu diggante ma jàpp ko du ma ko daan ko man nekkuma ay moromam. te la kat da nga xaar wala xaar man damay morom ba koy xaar su ma koy xaar amateur dañ may yeb te ñi ma war a bëri dañ may ñeme te bëgguma ba léegi mbëri ñeme ma moom su ma xeexee day daw xam naa gis naa nu muy bëree boo xàccee day eh, eh, eh, Fils de Balla du daw na non boo xàccee day daw soo xàccee day daw waaw mais yooyu yëpp yooyu yëpp muy dëru la di wër wëral ci géew bi maa nga xaar ci digg cercle suuf si nooy na loo gën a bëri mu gën a métti dañ ne 4 mètres lañ gat remplir ko su mu fees léegi góor a soog Fils de Balla arbitre suuf la pour seen diggante waaw boobu lay ne nga xam ne nag góor dëgg dëgg lay bëreel mbaawar mbaawar bi tu ma ñëwee stade la 14 août dañuy xam ne man du ma moromam bu futeeku ba war dem ci digg géew bi xam nga mbëri dañoo nekk fii di wax di négocier di wër-wëral yi man nekkuma si yooyu. yow doo ko may dara. lan laa koy may mayu ma ko ñaanu ma ko ndax kuy ñaan mooy ko amul doole ku mënul bëre. maa dégg nga ko dana ko may dara. mayu ma ko laa ba pare man ñaanu ma ko ndax ku ñaanu mooy ku mënul dara man am naa doole mën naa bëre. wala fii woo ñeme naa juruma ko nit ñoo koy cité. woo ko fii yaa ngi jàkkaarloo caméra Mm-hmm. dama la dama la 14 dina xam ne moom maa ngi moom du ñu ay leen rek la ma wax ju bëri ak biir ak taat amul leen lu mop ëpp. gaaw na de. sa bala ma naaxee. mën naa. ma naaxee billaahi wallaahi fii laa la ko waatale billaahi wallaahi laa la waat bu xeexee ma dóor ko mu daanu. ah góor su bëree ma jàpp ko loo ko ba mu toxi ma tëral ko si géew bi ñu bàyyi ko fa. man yow ma xola ah. dama naa nekk nii di dox nii. nga ñëwee ma su ma romee nuyu la seen yaa dama laa ragal wala dara fekk man noon laa mel si am bi ne noonu dama jox doomu aadama cër mais dafa am nekk si man loo xam nekku ci mbër yu bëri di wax fii. muy lan mooy nekk ak ak jàmbaar ak fit ak doole. làmb ja amul mbër bu fi teg ngeen bu mëpp doole man man bëri naa façon mbër bu nekk kuy contact Mamadou Ndiaye Sorgho Kouat Franc Garga 2 Papa Sow Modou Lo ñooñu ay Dame Sène ay aada boy bool ñoom Talfa ñoom maam góor foofu kan moo lay ëpp doole. mais entraînement bi moom it ne loxo lañ nekk ñun nekku ñoo xam dañuy ñëw di defar suñu bopp man ba ma ñëwee jàmbaar ba léegi musuma entraînement sama bopp damay ñëw ñu entraînement ma dem ñibbi liñ ma wax laay def ndax lam moom ñaar moo si am soo déggee ndigal sa carré day konne boo déggul ndigal sa carré du konne ndax bu la neex nga dem ci montagne bi di yéeg ak wàcc di a ak yéeg. kon la 14 août ngay jox ñëpp rendez-vous. la 14 maa woo mboor mboor yëpp ñu sool seen tese naaj sañse ba set sol seen i jas ne toog ci kaw bépp safoor bépp kuy jaay béton képp kuy jaay suuf woo bépp mboor mboor woo bépp kuy dawal saret parcelle gettu ba sunu koñ ñoom papeli di woo waa marché ba mafia 37 waaye nda cinq 1 ba 26 marché église ñëpp maa leen di woo. di nag làmb ji dama am lu ma jaral. lu lay jaral. li ma jaral mooy ndam laa ci soxla te ndam li ma soxla man maa koy liggéeyal sama bopp. maanaam dafa am foo teg sa bët ku dul euh, Fils baal noo non li ma waxoon jóguma ci patron bi yu bëre Gris doo dama bëgg ñetti eh, combat. Eh, eh, non defal nag defal nag Balla Gaye nag Balla Gaye nag Balla Gaye ngay laaj. non yow journaliste fii su subar der nga am journaliste. déedéet fii du la xaar. non dama laaj subar der nga am journaliste. dama ne dama may ma da nga may may ko subar mi mu yor nii bu ci déroulé bu bëree ba pare ma ne ko nii ay loxo ci bi. mais a métti ci yow. dama ni dama bëgg ñetti combat bu ci bëree ba pare fekk ma daan kii teg ñaar ni ko nii ay loxo war a bëree ak moom. bi gën a am tension parce que Fils de Balla boo bu déggee bu seetaan du fanaan ci lan day entraîné guddi. non bu ko neexee na ba dog diggante bi des ci combat bi diggante bi des ci combat bi ma ak moom. ma ak moom ay réglage fi des. góor maa la ko fii combat bi ma neex laa koy bëree su ma neexee mu yàgg su ma neexee mu gaaw am naa lu am naa lu ma bëree lu lu ma bëree lu gaaw ma waaje combat bi gëj naa ko waaje combat kon la 14 daal yëpp ak amateur lamb yëpp daal la mboor mboor yëpp a taxaw ñoom Dowa Bey ñoom Modou Thiep a ngi fi ñoom Seexu Naa ñoom Seex Bey ñoom Seex Gewal boo yëpp a ngi fii mënu ma lim ñëpp boo yëpp a fii di ma xaar fii Tali Njaga Mbay parcelle mboor mboor yi man la ñu xaar wooteel wooteel. maa ngi woon ak. maa ngi woon ak. ba ni ko moom yàgg nañu jàppale mu gën jàppale si combat bi Youssou Ndoye ngi koy woo yàgg na ma jàppale mais mu gën ma jàppale góor gu suñu maa ngi koy woo. di woo Moteur Dior Diagne di woo Momo Mbaye di woo Karamboj di woo Modou Bey Adama njaay Bada Bey Mbaye Dior dama bëgg jënd may bii nga tegal ma ko te ay mboor ay mboor mboor yoo xam te ne dama bëgg ñu sama combat bi woo nag ngañ ngañ ngañ maa ngi koy woo di woo Lat Bey ngañ dem ngañ ba Saneex Omar Diop ñoo ñëpp maa leen di woo Alaaji di woo Abdou Ndiaye sama rak aada jokkel ak patron Modou Bey aada jokkel kooku ni ku baax ku mën sonn ci doomu aadama ak seexu naa jaw di woo ji bey sama doom baay Alla Diop laay bey sama mag maa ngi koy woo ci combat bi ñaar laa bëgg nag ma ko woo pour mu jàppale mais damaa ñëw bëgg mu teew ci combat bi ndax sama mag la conseil doy na ma non dama dama waaw sama la dama soxla mu ñëw ci combat bi sa teewaayam damaa doy fépp fu mboor mboor nekk ñaar tali croisement Cambérène croisement Kër Massar fépp fu mboor mboor nekk maa ngi koy woo ak foire ba di woo nag sama maam père ba bi nga xam ne dafa yàgg sonn ci man mosuma bàyyi benn yoon ba may bëre Cobra ba léegi mu may jàppale keroog bu may jëbër jër bëre Cobra sama xaalis dafa jeexan moom ma jàppale mu bëri nit nag wax dëgg si yàlla moo koy doom ñu ngi may jàppale combat nag dafa am ñetti jigéen ñoo may ba ak maam Fatou ak Absa Mbaye seen combat la ay jigéen ñi rek 19 ñoo xam samay supporter lañ ñoo xam ne la la la 14 yaakaar naa ne Père Ba waa unité 19 man maa ngi woote waa Joal Fadiouth waa Marloj waa Diofior waa Ndangaan waa Fayako waa Djilor ñëpp maa ngi woo di woo waa Diouroup di woo nag sama mbokk mbor mboor yëpp Parba Lewna Mesare njarno fépp maa leen woo di woo sama ñaari ma ñaari maam Seera Faal yi maam Seex ñaari lam Faal yi ñoom si gaa yi sonn te lamb dafa metti di woo sama géwal bi xam nga koo xam ne xam nga chaque jour mooy bër rek tamay dëgg yooyu dafa metti eme feer cool yeeg mbëng yi ak ak ak ndeer waaw xam fan yi sama deret dafa tàng ba ay Talfa ak aada ñemewuñ ma noonu. waaw lamboo nga lamb boo ko jub noonu lay mel. waaw da nga yem safara. waaw loolu quoi mais père nag maa ngi ko quoi. di wax wax ji bëreetul. Mhm. jëf moo ci des. fépp supporter góor soog ma lay dig la 14 jours boo dikkee dinaa ko duma naa ko daan. yaay la 14. di damay toog ci tànk yi duma ko daan ko. la 14. waaw. arène nationale. arène nationale. Ah. waaw. di sant nag. di sant Serigne si. sëñ Cheikh Fall Mbor sëñ Cheikh Thiock sëñ Basi Fall maa ngi koy ñaanal yàlla na suuf sedd ci kawam sant sama ndijaay Ibrahima Dieng di sant Ibou Sini Thiaw Laay ah Idda sëñ Cheikh Mbacke yooyu maa ngi sant di wax ni Cambérène gépp la kados seeni laay sama xarit waaw la kados Cambérène parcelle gépp maa ngi woo sama combat bi mbokk mboor mboor yëpp maa gis naa nag mboor mboor seen taxawaay seen alal bi ñu jël jox ma ko dama ci am contentement loolu lépp ak cawar la may yokkal ak njàmbaar gis naa ko ñu dayal seen alal yëpp jox ko seexu ma ceeb ak aada ak asoy laa ñu indi ma ko loolu cant la quoi may sant yàlla bu baax di jox rendez-vous la 14. bu bëggee pare kat yaa ngi fi ko xaar. bu bëggee 1 cent pour 500000 bu bëggee. 400000 pour 200000 bëggee 150000 pour 75000. mbayaar yëpp a ngi ni taxaw. père xoolal. waaw barki Seydouna Mouhamed mbayaar ay nii ñii ñëpp ay mbayaar la. Ah. maanaam fii sa baala bu nangoo. bu ah. nangoo sa waay du ma ko tàggu reliquat am laay teg. waaw ah. reliquat am ngay teg. Serigne Bamba Mbacke lu mu wax dëgg la kii. reliquat bi laay teg billaay combat bu ma dee 2 minutes ñàkk nan. barki alxuraan ñàkk ngeen ñàkk nan billaay. góor a góor a góor a man xaalis bu jógee fii dem. billaay fii sa baala ngir yàlla war a suuri sa wax ji ngay wax ratatati di ngal ngali rek. taxawal nga dëggal sa barki Seydouna Mouhamed. dama ko ñaan ñaan quoi a ko ñaan en tant que frère taxawal nga dëggal sa bopp nga bëree góor yàlla nga bul daw ko deux ñu dañuy kaaw dañuy jël suñu xaalis bi yëpp teg ko si nekkal góor yàlla fi wàll xam nga la robe mariage xam la mën taaral bis kese billaay wallaay taalaay fils de fils de da lay daan jërëjëf war am na fi war dañ daan bari sa ratatati bi jërëjëf jërëjëf léegi ki nga xam ne mooy fils de nag mu war a daje ki nga xam ne mooy góor soog la 14 kan moo ci woo jamee kee ñëwoon fii ci entraînement ki bi nga xam ne ni mooy euh, Fils de Balla nañ jëli Gora Sock tey nag ñoo ngi fii ci fi nga xam ne nii nag euh, ki xam ne mooy Fils de Balla fi lay ñu war a dajee arène nationale ñu ngi wër di def micro territoire nag ak gars yi bu ñu paree jël ko ñu seet ñu yóbboo seen mbër ak nuñ ko préparé waaye maa ngi jàkk euh, jàkkaarloo koo xam ne nii Sénégal miin nañ ko àdduna miin nañ ko Boucher nuyu naa la li ngay tàggatoo li ngay nuyoo dafa bari wax ji lenn rek la jarul nuyoo jarul ay tàggatoog ay affaire yooyu góor Gora Sock. Hmm. tapet la déglu ma bu baax ma wax la. yaa ngi may dégg. xam nga lan la mën bootu ci gaw ay Modou Lo ay affaire yooyu te bu bis baax Modou Lo du ñëw Franc mii mu xoolal Franc na pare man waxuma waxu fi Gora Sock Franc na pare taxaw xaar Franc mel na na pare taxaw xaar. bu ngeen daanee Gora Sock ci Franc ngeen. fils de Balla ki mu daan moo mën fukki Gora Sock ak juróom-ñaar fukk général Malika mën na boot fils de kii Gora Sock di bëre Malika. mën na boot góor a soog di bëri. mais yow mais yow gis nga góor a soog fan yi. góor a gis naa ko mbaq ay mbaq la yor. wuyu ma ah, ah déglu ma mbaq dama ne ah. Eh, yan abdo góor a soog domino bi dafa doon bëri man su man man man man ma jàpp fii du ma bàyyi fii su ma ko jàppee mu tëdd. góor a am na domino yi. su ma ko jàppee mu tëkk lii non man ak yow man ak moom bokk ñu man dama liggéey. nee na da ngeen di door da leen di door ngeen wàcc. kan góor a soog góor a soog amul fitu xeex mu ñëw te xel la indi. ñun léegi dañoo yeewu ci làmb ah. ñun léegi lamb dañ cee yeewu. Ah. géejawaay nekkuñu fi naan dañuy jéem a. 100 pour 100 parcelle 100 pour 100 géejawaay. ñoo ko fi njëkkee. parcelle dañoo xew ñoo ko fi njëkkee. yéen écrits yi li ñuy wax yëpp gëmuñu ko. Ah. yëg may déglu ma wax la. waa parcelle ñun suñu 100 pour cent ñooy añandoo ñooy reerandoo ñooy nekkandoo ñooy nekkandoo. yaa ngi dégg wane wuñ ko ci télé bi nii di jaay ngistal te fekk nekkul ci ñun góor a am na combat bu rëy rëy rëy bëri na dem nañ tàpp suñu combat ba combat bi di waaj a jege xaalis bu bëri ñu def ko ci mu dem ne tànk bi day métti mm. boobu na ci yooyu ñu ne ko kii xale la moo la mën ne ko bàyyi li ngay def nii bul booy bi mu daw arrière def certificat médical jamaykee jàppale ko ci mu dem nangu affaire yi bala 14 bala 14 arène nationale jamaykee moo ko ci jàppale may ko ci doole mais loolu bu ko jamaykee xam na ni góor soog dara dalu ko déet waay combat boobu man maay jàpp góor maay jàpp Fils de Balla boot ko ëmb ko indi ko tiital fi fi ñemewul golo. tapet la yow ku loo ku loo golo. ñemewu ko kon dafa mën a yëg. ay fils de ay kii ay góor a soog ay ay. moom amul yar na bàyyi la dageer la dageer du moroomam na dem xooli moroomam yi na xaar fils de Balla pare ci góor a soog mu jël ko ñu bëre. yaa ngi dégg Fils de Balla moo ko raw Franc de Balla ko gën palmarès nañu waxante dëgg. waxal Franc kum daan. soq la mujjee daan. Fils de Balla ku mujjee daan. Tyson 2 daan na Tyson 2. Fils de Balla ku ko daan. ñi ngi lim noonu ñëpp. général Malika mën na leen a boot di bëre wax dama lay wax rek général Malika mën na leen a boot di bëre xoolal di nga daan 150 personnes. mais Tyson 2 mën naa xeex waaye may déglu. di nga Tyson 2 mën naa xeex de. di yaa ngi dégg am ku ñëw daan benn nit boo xam ne ñoo ñëpp mën na leen a ëmb di daan mooy jël nga rawkaati gi Fils de Balla kim daan Gora Sock mënu koo daan fii ba gannaaw suba te bu arbitre ne prix bu bis baa nga xam ne Gora Sock du mbër. Fils de Balla a xam ne ni gaynde la te xale bu ndaw la musul daw ci làmb kenn musu koo xamee ci ñàkk fayda xam nga bërëm yëpp da koy teg ci fulla ak fayda ku ne xam na Fils de Balla. mais fi euh, Gora Sock Gora Sock tëkku na leen de. non ñun fi ñu jógee moo gën a metti barki Seydina Mohamed. général Malika wuurul Gora Sock moo ko mën fukk yoon ak juróom. barki sëñ Bamba. ngeen tër ñu tër ko ci ay wan minute. mais moom mu tër na ki nga xam ne mooy Tyson bi. non Gora Sock na bàyyi nit ñi muy nax Gora Sock ragal la barki Serigne Touba Gora Sock combat bi des ay fan yu néew mu ni tànkam mooy mais te dara jotu ko. barki sëñ Touba. dara dara jotu ko ñëpp xam na ni Gora Sock day tappale. billaahi dafa ragal boobu ñemewu ko. fi mu nii nag man vidéo yi yi Fils de Balla di def sax bugguma ñu dugal ko parce que xam naa ni ragal la bu ko gisee fi mu nii dina daw man xam naa loolu. bi ah. am na vidéo xam ni maa ni Fils de Balla téye ko ah, parce que buñ ko xaw ah, parce que ko gisee. non maa ni ko téye ko vidéo yi bu ko génnee parce que bu ko gisee fi mu ne nii dina dina dina indiwaat leneen luy métti yaramam moo tax maan ko téye ko rek ba combat bi. bu jàkkaarloo moom télé bu mag bi. Mhm. nu muy nu def woon. gis plus de Balla Gaye non lëkkatoog yàggatul incha allah lépp dina leer. dañu bëgg làmb ji mobiliser ko ba mu fees dell ndax lii mooy dernier examen Fils de Balla ku ne xam na ne Fils de Balla dafa sonn ci combat déclassement yi daan na moromam yëpp li gars naan kenn du jeexal say morom moom jeexal na ay moromam te Goro Sock incha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla wér ak tan ba jour ba mu ñëw. la 14 arène nationale. incha allah foofu à domicile la. Fils de Balla dina ko duma dina ko daan la ma waxoon ci général Malika dina ko duma dina ko daan par force. déet waay barke Cheikhul Khadim góor a soog takk na leen Fils de Balla day xale. am ginnaaw waa waa waa waa ko ñoom yaakaar ko ba pare bu Balla gay de nekk papam gis nga ko làmb ji gis nga ko du ci jëlee ay responsabilité am te xam nga Balla gay bu dugg ci làmb loolu leneen la. ñi ngi ñaan daal góor a yàlla may ko jàmm wér Fils de Balla yàlla may ko jàmm ak wér mu bañ a taw nag. ndax làmb yi wax dëgg neex yàlla sonn nañ ci trop. liñ ci def lu ne. waaw Jamaye Kay tamit ñu koy nuyu di ko sant ndax combat bi daj na ci ay coono. Mhm. ñu ngi koy ñaanal réussite bu baax ci komba bi mu am ci lu kaw njortam di woo waa waay nag ndax mobilisation bi père mhm. dafa important. di woo ñoom Yaya ca Paris ñoom Mams ñoom Landing waa Albachir Yaas Motor su ñu ngi woo gaa yëpp. ñoom Père Wade waa amoo 456 bàyyi ñu kenn nag ak doomu ndaye mi ñoom Goro ñoom daam automobile ñi ngi woo gaay yëpp ñu ñëw ñu jàpp ci ñu mobiliser Goro moo Goro moom mi ngi mi ngi otel ba nii daama taxaw nii borom oto yi waaw doomu nday Fils de Balla ak magam Ismaïla ak ñoom gi taxaw ñoom ñëpp a ngi taxaw làmb ji dañ ko bëgg ndax bu mooy la wax rek Fils de Balla da koy daan dem jëli nag ci ponkal yi ñaan yàlla nag cat bañ cee dugg yàlla may ko moo war a jàkkaarloo Gora Sock waa parcelle nag wax nañu tëkku nañ la hmm. cent pour cent parcelle cent pour cent géejawaay mais nee nañ yow yaa jiitu ci bopp yow la ñu njëkk a jël teg la fee dogoo daan fi si na baal kan moo wax loolu waa parcelle waa parcelle waa parcelle yabuñu waa géejawaay géejawaay déet waa parcelle hmm. yabuñu géejawaay pigil lañu yab waaye yabuñu waa géejawaay ne la booloo fii la fekk baax géejawaay parcelle hmm. yabuñu géejawaay de <laughs> ñu yab géejawaay parcel bokku ci Goro sax Goro sax takk na leen de. non xam nga góor sama rakk la xale bu yaru la waaye may xamal benn affaire nan nangu rek si la 14 ndax xale bi gaynde mer la fanaanoo. di naan eh, teel a nangu dina yombali dugub. waaw ndax gaynde mer la fanaanoo fii sa fii sa bàll bii ma gis ëllëg hmm. ah dama am ci moom yaakaar Géejawaay. Ah. kon góor sax mënu leen a téye. déedéet du nu téye. Ah. góor mu non non non góor mënu ñoo téye waa parcelle yëpp ñu waa Géejawaay fii sa bàll pare na. waa wat fils de Balla tamit gis nga dooyi ab dooyi ah fils de Balla gis nga dooyi tubaarikàlla macha allah ah gis nga ab doo fils de Balla bi tamit dooyi ab domino bi gis nga ko waaw di nga gis làmb ju neex billaahi wallaahi taala di nga gis làmb ju neex ndax may ma tuuti ma la ñaari xale lan yu nekk ci yoon di dem tey fi Modou Lo àgg Balla àgg fa ñoom am ëmmat seen àgg fa ñoom foofu lañ teg seen bët xale bu ndaw tamit tëgg ko xale bu am jaw xale bu am jom jamaïcain juddu 98 nekk xale bu ndaw ba pare ba pare ba pare ñoom ñuy bëre drapeau koo xamee ni ah la macha allah sama sëriñ sama xarit sama genn wàll muy sëñ Cissé mu sëñ Babacar nee nan ko laal nan laalaak jamaïcain laal nga laalaak waaye mbër yi koy mbër yi koy bëre <laughs> laal nan laalaak drapeau sëñ Cissé mu sëñ sama xarit. a no ah, ah sëñ si looloo am looloo am looloo am looloo am looloo am ndax sama sëriñ la sama xarit la man daal maa ngi ñaan fils de Balla daan ñu jël drapeau bi yóbbul ko oh, sëñ Cissé mu sëñ Babacar. la 14 a ah Lamine Lamine loolu du question nag. Lamine loolu du question yow saytaane nga ndax loolu ma ko waxee waxi saytaane ngay wax ndax soo taxee naan ma fils de Balla ak góor sa koo faral affaire saytaane ngay def non non yow promoteur bi yéen a yem fa ay saytaane ngeen. waaw waaye ay saytaane ngeen. ah bokk ngeen ci équipe eh, waaye yëfi saytaane ngeen di def ah yëfi. saytaane dañoo jeng ay saytaane lan. ay seytaane lan say xarit lañu waaw samay rakk maa ngi ñaan daal yàlla may leen wér. bala 14 incha allah rabbi fils de Balla daan góor sok ah non non non mun na xeex dinaa mënut a ñàkk ay xale lan dañuy wane seen bopp su bis ba non il faut ñu xeex di leen xeex di leen bëre man maa la wax li man maa ngi ñaan daal ndam li dikk géej way waaw. ay la sept. jërëjëf ay la quatorze. ay la sept ay la quatorze. ah la quatorze ay la quatorze. ay la quatorze arène nationale yàlla. waaw salaamaaleykum di ñu nuyoo ginnaaw bu ñu sant yàlla jël seen bi sant suñu ñaari waajur bu baax di sant sama sëriñ. sëriñ Moussa Nawel di sant njaboot sëriñ Moussa Nawel yëpp waaw di leen sant bu baax a baax di sant sama papa bu baax ak sama yaay ak sama mag yi ku su mel ni ñoom papi Ismaïla Aliou Ndiaye ñoom Landik ñëpp di bëggee tamit waa école Balla Gaye di sant tamit waa amoo 456 yëpp yëpp yëpp bàyyi ma kenn AKD di sant waa Géejawaay bu baax a baax rawatina te suñu suñu yi ku su mel ni ñoom Lamine Golo Mbës. gaa yi nekk fi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi sant ak mbër yi nekk fi yëpp boobu ba léegi xam ne bàyyiwuñu boobu ba léegi suba lu ñu ne ñu ngi si leen sant bu baax a baax ñu jëm la 14 Gora Sock na boo ñëwul mu ñëw te da lay nga waaj ñu lay xaar la 14 <laughs> arène nationale yaag Gora Sock face à face Gora Sock préparé waaj naa bu baax waaj naa samay mbokk waaj naa ak samay xarit waaj naa ak waa école Balla Gaye ak waa Géejawaay Gora Sock day wax lu ko neex rek Gora Sock musul dóor mbër mu daanu. Hmm. musul xeex ci combat. xaatim a ngi nii dina la ko waaye loolu day wax lu ko neex rek mais Gora Sock moom man man maa koy song ci ma xam laa koy ñaan. Hmm. mu ñëw taxaw. nee da lay dóor nga nga nga wane ginnaaw. waaw ah! man soo fi de balle dis na de. sama morom góor maa musul dóor ma wane ah, ginnaaw. da koo mën day sóob rek day wax lu ko neex rek. day jaay day jaay làmb ji rek mais loolu mënul ne sax loolu mënul ne mais Gora Sock na ko gisee garaaw na de. Ah, garaawul loolu laa bëgg nag. Ah. bëgguma daan ko ñu naan ay parewul wala pare dafa gaañu yooyu laay bañ. gisee bi mu dawee ñàkk góos duraat yi man di damaa tiit. waaw ah, mais garaawul bu làmb ja na ko indi rek. bu làmb ja na ko jëfee rek loolu laa wax. da di xeex digal amateur yi wala dañuy xeex lu mu bëgg am na fi. mooy choisir bu ko neex rek. déet waay Gora Sock yaay choisir bu la neex. bu la neexee xeex bu la neex ñu bëre. mooy choisir bu ko neex. góor ay choisir góor a déglu. góor yaay choisir bu la neex. choisir bu la neex muy xeex muy bëre boo bëgg nag li naan tànnal bul sànn. waaye déggalu ma xanaa mooy choisir kan jeexal na lépp. ah fils de balle fils de balle man tiit naa de. mooy choisir bu neex bu bëggee ñu xeex doo ko bëri bu bëggee ñu bëri xeex. Ah. amul teg teggi est-ce que est-ce que protestant yi dina dina wat. waaye ba gisoo gisoo protestant yi xanaa. Ah? lépp programme nañ ko. lu mu bëgg rek am na fi moom mooy tànn bu ko neex rek. man de 100 pour 100 mu ne taxaw koo jóg. ñoom yabuñu waa parcelle wax jëfi rek. mais bu boo wéete xam ki la mën. daal man du ma ko wax la ma ko daanee daal am na fu mu teg bët. kon ndox mu may jël kon. noonu taxoo koo jóg. ndox mu may jël. nee na da lay maasale rek dem. maasale man sama morom góor dina ma maasale. ah ma ko wax de ma ko wax de. <laughs> waaye day wax lu ko neex rek mais góosu moom mënul loolu. man li ma koy ñaanal xanaa koy ñaanal mu ñëw bés ba taxaw. Hmm. man maay def lépp may xale. góor soog may xale. dama lay ñaan ngir yàlla rek yow taxawal benn place lépp lu la fa am lamb ji maa koy def may fecc may ambiance may bëre may daan si kàttanu yàlla. yow daal danay laf rek am fu mu dëgmal. bu hmm, yow dégg naa dégg naa ko muy wax mu naan bu jugee si combat bi day fekk Balla Gaye yow bu la poulain Balla Gaye daanee. foo jëm bu ko poulain bu ko bu waaw bu ko poulain ba ñoom nañ nañ laaj nañ laaj mu patron moom Modou Lo nañ ko laaj ni ko gaynde gi def nañ ko laaj ba pare moom wax na naan di dugg si Balla Gaye moom hmm? moom góor a de man ba waxee loolu daw. Hmm, góor a am da ngaa ko yaa ngi jëm ci euh, poulet Balla Gaye naan daanoo góogu. di jëm ci waaw da ngay jëm ci bu mag bi. nañ laaj seen ponkal moomu Moodu nañ ko laaj ñoom xam nañ kuy Balla Gaye bu baax am yow ñoom xam nañ Balla Gaye bu baax wax jëfi nii nii rek. ñoo ànd fi nag ñoom Franc ñoom Papa Sow. xanaa gisoo ñu fi ñoo leen fekk koo fi fii yoo gis fii. loo fekk fii yow. ah loo fekk fii xajam de. géej waaye rek nga fa fekk amul keneen ku ñu. man nag bu boobaa sama micro laa yor rek maa xaadim ñaari mbëri jàppante ne. voilà di de Balla góor a soog ñoom ñaar. lamb jël lépp lu fa maa koy def. jël waay maay xale. maay def lépp ah, man góor la laa sant mu taxaw moom nañoo nekk moomul laj dégg naa sax gaa yi booyam ne dañuy teg euh, xaw ma nu kat yaa ngi fi. waaw loolu la ñu fi que ñoom lañ teg rek. ñoom ay loolu la ñu wax. luñ bëgg rek nañ ñu ni si làmb ji déggoo li mu la xa. Ah. ñu ne luñ pare luñ pare pour teg rek nañ ñoom mbayar yaa ngi fi dinañ xaar. si ñoom si ñoom lay dépendre rek ñoom luñ bëgg rek am na fi. ah buñ ñu carte bu ko neexee ñu teg suñu reliquat ñu teg ko. loolu si dégg naa loolu dégg naa ana jamee jamee kee ngi ne bu ko neexee ñu teg seen loolu dégg naa ko ñu ko ñu teg reliquat yi ku daan yóbbu sa reliquat morom teg fa dégg naa ñu ko teg. jafe kee ngi nekk nañ nañ na ko confirmé. teg suñu reliquat fa la la fekk. nañ ko confirmé ah. kee ngi ni waa CNG nañ nangu nañ ñu may loolu rek. yow nag yaa tëgg mbëri. waa CNG na ñu may loolu rek. ñu teg ah, ñu teg suñu reliquat. yow wax nga góor soog wax man lépp lu ma wax jëfee naa ko ci man lépp lu mu ci làmb jëfe naa ko. Ah. waaw bu baax di ko ñaanal bés bi ñoo gën a gore. ñu ngi ñaan tamit woo autorité yëpp géej waaye yëpp ñu génn. jàpp ci làmb ji. waaw ñu mobiliser làmb ji bu mu fees. waaw comme ni ñoom soq def làmb lañ bëgg a tëj làmb ji. loolu lañ bëgg a def tëj làmb ji su woo tamit Lat Diop bu baax a baax Lat Diop ñu ngi lay woo ci làmb ji nga jënd billet yëpp Lat Diop yoo laa ciy woo bu baax nga jënd billet yi Ahmed Aïdara ñu ngi lay woo ci làmb ji Alioune Sall Néné Fatoumata Tall ñu ngi lay woo ñëpp autorité Guédiawaye képp ku nekk autorité Guédiawaye ñu ngi lay woo nga génn ñu jàpp ci làmb ji ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di tamit sama papa Aziz Ndiaye maa ngi koy woo bu baax ak Masata Ndiak Khalil Sora Baye Ndiaye ñoom baru ñoom ñëpp maa ngi leen woo bàyyiwuma kenn waa kër famille Aly Ndiaye woo ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñu jàpp si génn Aziz Ndiaye sas naa la billet tamit nga génn si billet yi Pape Mama tamit maa ngi koy woo tamit sama papa Pape Mama maa ngi koy woo bu baax waa Jasoura bi yeeyaa borom Paris maa ngi lay woo nga jàpp si bàyyiwuma kenn di woo tamit sama mag bi nekk France Aliou Ndiaye maa ngi lay woo bu baax a baax ci làmb ci woo ñëpp. di woo mam si tamit di woo ñëpp autorité géej waaye di woo tamit Karamba borom Mbour Karamba borom Mbour ñu lay woo tamit bu baax a baax nga gën a dugalaat affaire loxo yi di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di gën sant tamit suñu coach su box bi tamit xaadim maa ngi koy sant bu baax boobu lay muy bàyyi yitteem. waaw góor soog ko di ko sant bu baax di sant tamit Ibo sama coach musculation bi. Gora Sock man loolaa xam mooy choisir rek. non fi mu dégg wax ko. Gora yaay choisir bu la neex boo xeexee daanu boo bëree daanu yaay xool bu la neex rek Gora Sock. ñëpp moom mooy choisir rek. ah man de sama yoon ñëw si ak moom. moom mooy choisir Gora boo choisir boo ñëwee xool jël boo bëgg ma daan la ko ma ko mu jeex. foo bëgg ma tegal la ko waaw fu mu bëgg rek moo xool su et huit. ana ah, seen fu mu bëgg ma daan ko fa ma daan ko fa. maay xale maa gën a féetee maa soxla làmb ji maa ngi woo ñëpp képp ku ma lim rek damaa juum di woo tamit euh, Cheikh Dia maa ngi koy woo bu baax a baax ci làmb ji di sant tamit sama douanier yi waa Daaru Minam maa ngi leen woo bu baax Alkayda sëñ xaar mi Kamal maa ngi lay woo bu baax ci làmb ji di woo tamit waa Géej waay waa Tëngéej maa ngi leen woo bu baax ak waa Barñe sëñ Moussa Nawel sama lépp sama wéeruwaay sama lépp waa parcelles maa ngi leen di sant bu baax am na parcelle am fa may xarit di sant ñëpp di waa Tëngéej ak waa Bargny maa ngi leen woo bu baax a baax ci làmb ji di woo ASC yi nekk Guédiawaye yëpp zone 1 zone 2 ku ma ASC yi mu leen may jum di leen woo ñoom ñëpp di woo waa Jubóo waa Sax Ngom fi ma dëkk maa ngi leen woo bu baax a baax ñu génn ci làmb ji ñëpp di ñaanal tamit Balla Gaye 2 yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm dimanche incha allah mu yóbbu mu ñëw làmb ja toj làmb ja indi la làmb ja toj làmb ji ñu daan dem ñibbi di sant ñëpp ah, di sant sama gars yi ma àndal ku ci mel ni Dame Ndama Ismaïla Badou gàlla góor a yan bu diis ah góor a soog ah non doful sax góor a bu gaañuwaatee moom fekk ko ba parcelle bu gaañu sax day tee day bëre bii bu gaañoo sax day bëre góor a soog boo gaañoo di nga bëre de xamal loolu nag te fii metti fa jaar wax naa la ko nag fii metti fa laa lay daan xoolal bu la neex nag jërëjëf jërëjëf Xaadim euh, euh, euh, jërëjëf euh, mu loolu moo xewoon fii ci fii nga xam ne nii mooy entraînement bi nga xam ne nii moom la jëri woon fils de Balla mu a daje ki nga xam ne nii mooy Gora Sock la 14 jamee ke xele bu yaru bi tëgg ko xele bi nga xam ne ni daa téye làmb ci loxo macha allah ak Gambie senegal lu mu yor ci jëlee cim réew ci réew mi la ko indi yaru lool maa doon xaadim ci caméra bi dinañ jox rendi fils da Balla. pare bi tamit ñu ngi koy woo tamit pare bi Serigne Cissé Serigne Cissé ñu ngi lay woo tamit nga jàpp ci biir tamit. waaw Ngor Ndiaye géwal tamit ñu lay woo doomu nday Jame Kee Ngor Ndiaye géwal ak jili borom Wassare mais sëñ Cissé ñu ngi koy woote mu jàpp ci biir tamit. Jame ci saahir xale la waaye ci baatin du ndax jëf jëfinu xale xale amut jëf xale fi am jëf kilifa am fi Jame Kee nag baax Serigne Cissé comme ni ma ko waxoon ci jëmmam ju xeebu damay sargal Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy. loolu mbaax la jël bis bu toll nii Gora Sock fils de Balla la mu ne sargaluma ci kenn ku ñu Serigne ndax loola lam ma defal est-ce que mën naa ko ko fay est-ce mën naa ko ko fay est-ce que mën naa ko ko fay waaye nag la ma ko waxoon li dul jeex lenn la muy aaju ju dul faju faju saa su ne ci saay rek ci baatin bi ma ko tuddee nag la ma njëkk a def mooy ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleeg muy ay sëriñam di waa faydu bi laa njëkk a woo ci lii di taal di jël nag ñoo bokk lu ñu sikar muy naasiril xaq bil xaqi moom la ñu bokk di ko sikar kon bu ñëwee am mbir ne day sargal dama naan waa faydu bi jóg leen jóg gi nag lan la nu ñu téye kuréel na nu ñaan bis bu jamay kee mos def na ci bii dàq. na ci gën a neex na gën a fees xéwal gën a bari bu mu doxee ca nag mbiram dem ba faw man loolu lay ñaan waaye bu dee mobiliser ay nit taxumaa wax xam nga man fi mu toll lan mooy wax ji jamaïcain bu bayee koo fii na yëg ne ku mos a tuddee bis kii mu tuddee moom la war di tuddee. maanaam bu fi bàyyi ko daal na gis ne bis bi tuddee Serigne Cissé. Mhm. bis mu tuddee woon nit bee ko raw. loolu loolu laay ñaan yàlla. waaye bu dee sax ay mobilisé euh, mobilisé ay nit ñu ñëw ca stade ba kooka taxumaa wax fi mu toll li ma tax di wax mooy ne jamay jamaïcain moom buñ fi génnee na ñëpp yëg ne jamaïcain moom fi mu toll moom téye na yëfi man loolu loolu loolu loolu laay xaatar man moom lay xaatar boo ruujee ba ji mhm. bu bu bu mhm. xam ne yow daal doo moroomu ñi doon góob déedéet arena wàcc na fa mhm. gan gu ci péelu na fa waaye jëmu jii toog sëriñ Cissé bu Seydi Aboubacar man sëriñ Mansour borom daara jii hmm. moo fëgg sama bopp lamb benn yoon laaj ci mos a génn deuxième ba jamaïcain la te troisième ba gëwma mu yomb hmm? waaye kerek bu nu wàccee arena ndax jamaïcain mii la 14 suñu wàcc arena dana danañu xam ne gan gu ne jaar na fa ministre jaar na député jaar na enseignant jaar na ku ne jaar na waaye bu sëriñ Cissé ñëwee ñu xam ne ki war a ñëw ñëw na. ñu xam ne waaxum gileem xëyul ci pant rek. kon Jamaïcain yàlla na yàlla fal ñu catti bii bis. bis bi dana neex lool waaye daal nag kenn ku ne fexe buñ la ko nettali rek man Jamaïcain na fexe ba am jàmm wér. tawféex sutura mbër yi wér tawféex sutura yar ak teggin ndax drapo bi ñuy bëree la. drapo la drapeau Serigne Cissé mu sëñ Babacar yar ak teggin koy bëree ku ëpp yar daan. léegi ñu ne si fas yéene gunge say xarit say soppi ndax dégg na am mhm. mhm. nag xam nga ku waral lii. Mhm. su ma soppe xarit su nit. kenn ci man muy monument de liiru jaan Diane. Lirou Diane nit koo xam ne ak man nitam bëgg nitam nitam da koy jaral lu ne Lirou lu ma nekk mu nga ca lu ma neex neex na Lirou lu ma naqari naqari na liiru liiroo waral li lépp kon Lirou mboole mbër mu war a ñëw toppal ci gannaaw Lirou. moo jiite. délégation mbër yi. Hmm. ci ginnaaw Lirou. waaye nag mbir mu ci amul oto wax koog liiru. mbir mu ci amul oto bul topp ku ci amul oto. waaw oto. wax koog liiru. wax koog si amul oto. sëriñ si amul oto. waxoon naa fi sunu waar ku ko am dooma topp. tax mooy tax. ndax sunu waar baatu sunu waar gars yi xamuñu ko. xaadim xaadim dégg waar. mooy taxi. mooy taxi. ku ko ci am bul ma topp. boo def sëriñ te bëgg bokk ci quatorze oto yi ma bëgg a yóbbu te amula toogal benn communicateur bi ma bëgg a topp te amul oto toogal ah communicateur bi sama mayoon ah kon dina toog ndax man ñaanal moom départ ko am ci dara jëy sëñ Babacar ndax man départu sëriñ Mansour borom daara ji lay départ bu ma départé amatul naan di expliquer bu ma départ rek dem boo gisee ma wax loolu mhm. mooy ne bëgguma départ ñu naan ma sëriñ si da ban oto laay dugg ku ne fi nga jëm rek na ko xam est-ce ndax Cofa bi bu xasee départ wakaam jëm naa amatul taxaw moo tax ba ci animatrice bi amul oto toogal yaa ngi dégg mhm. ku oto dikkal moom naa ku naa ko waaye nag fukki oto yi ak ñeent sëriñ see koy indi ndax lii mbiru sëriñ si la sëriñ boo xam ne nag yow leer na ne li ngay def dafa laaj làqatu hmm. toogal mooy ak njuba di rek bu neexee ci yow. yow sëriñ si nga xam ne buñ dóor rek mu tàkk. maanaam ñi nga xam ne ñàkk nañu seen image diggante ak jaam ñi. Hmm. li ñu wax ak jaam ñi def nañ ko bëgg naa ñu rax ma. làqatu ndax sama sëriñ sëriñ maam Malick si bu sëriñ Mansour borom daara yi daf ma wax ne ma. Hmm. sëriñ si dama ne la bayka mu ne ma danga woote sa bis. nit ñëpp ñëw yow nga yàqoo ca ñoom ñu deferoo ca. lu tax loolu. image bu tilim yàq sa bopp loo wax ak jaam doo ko respecté kooku buñ la gisee ci ginnaaw sëriñ si Cissé dañuy foog ne yéen a bokk lu ngeen di communiquer kon kooko na toog kii jubal na ñëw ndax jamaïcain dégg ngeen fi ma ubbee samay wax borom ñaari nationalité la day dem Sénégal dem Gambie li ko ko may nag njub la kon bëgguma sëriñ si mu sëriñ Babacar di indi lenn luy taasal ginnaaw ak jamaïcain loolu moo waral ngeen dégg ma lim ne ki am na ñëw ki amul na toog nangam nangam et cetera ndax man sëñ Mansour Sy sama sëriñ moo tax samay mbir. Euh, waaw moo tax samay mbir day day xoromu. Euh, ku la tuddee drapeau moom mooy tuddee na doomam rek. mu am kontante mu dekk loo xam ne loolu dama si woo waa parcelle di si woo waa àddina di woo képp ki nga xam ne yaa ngi tiitaroo global textile waaw di la te xam ne ah, am nañ am nañ am nañ am nañ am nañ bés. mu doon lu rëy def na loo xam ne ak boo xam ne man daf ma bett waaw suma wax xalaat suma sama dund moo di si am kontaan di si am fierté bu baax a baax ak sëñ Fallou. tey nga war a ànd ak say mbokk ak say xarit koy waajal la 14 da ngay mm, xëjam tabax moom koy luy moom moom moom moom ah, naa dina dina bëri bruit la moo xam naa si dina bëri bruit ndax xam naa ne bari na ñoo xam ne yàkkamti woon nañ lu mel nii Assane am ko kon maanaam bu ko jamono kee defee aw amuñu fayam. waaw ah, defal nañu loo xam ne doon na si day doon loo xam ne day marqué suñu àdduna day marqué suñu vie moo tax amuñu fayam waaw. yaakaar naa ne eh, Jamaïcain li mu def parce que boo seetee xel yi mu tudd làmb rek ay moromam lañu. dama ne nit booy ànd da ngay ànd ak ñi nga maaseel nit booy ànd da ngay ànd ak ñi nga yémal jikko waaye nag duñ fi jóge ndax dañu ngi suñu jarbaat boo xam ne nii eh, dañoo bokk teere bokk làmb ji eh, muy géwéloo asan te weexal sam naa lu tax tax a ñuul tey ma jox ko nag ñu wax ñuy préparé bis bi ànd ak géeram ñu wasee ne ñëw national la la jamee jameekee fekk ko fa delloo ko njukkal ndax dañ ne ah ku ma lebal kër asan ne na guddi laa lay fay am sama jarbaat. maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk waaw mm. baax na père maa lay nuyu di nuyu waa TFM yëpp di wax ni Jamaïcain ñu ngi koy félicité ndax boo jëlee bis dara jaale ko ki nga xamante ne mooy Assane Fall Global Textile tuddee nga ko parcelle waaye tuddee nga ko ñi nga xamante ni tey ñoo ko def li mu doon muy ay client am Assane dafa nekk nit koo xamante ne vraiment nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku woyof la xale la boo xamante ni fi Jamaïcain jaar rek ci làmb moom fa la jaar ci métier bi mooy ambilaana liggéey na daj na ay coono ba yàlla suñu borom dara jaalee ko lii Jamaïcain nag dafa nekk xale boo xamante ni day bëgg ki nga xamante ni dafa liggéey ba yàlla suñu borom suturaal la ba nga am li nga am bu lay tuddee drapeau sax doo ko yëg Assane mi yaakaar naa ni bés bi waaw da delloo njukkal ca la mu nekk ndax Assane mii bi koy Jamaïcain di di di di tuddee drapeau bi woowu ko sax téléphone daf ne jamaïcain dafa gis ni Assane nit la boo xamante ni nit ku baax la nit ku yaatu la mu liggéeykat la mu jël bis bi tuddee ko ko mu ci Assane nag mu ngi ci woo képp koo xamante ni soppeem nga képp koo xamante ne xaritam nga képp koo xamante ne am di jàmmam képp koo xam ne Assane mus na laa lebal lu baax mu ngi lay woo ci la 14 ot nga ñëw dooleel ko jàppale ko ndax wolof daf ne dooley jën ndox dooley woykat public waaye dooley Assane Fall yaakaar naa mbokki sénégalais yi la Assane mu ngi ci woo ñëpp euh, di féliciter jam parce que jam chaque fois pair bu tëggee journée dañu naan jam xale la wala mag la waaye gis nga ko macha allah xale bu ndaw la 98 la judd xale bu ndaw la macha allah bu bu lekk xale boo xamante ni vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko gudd fan ak wér ba Lamine sekk borom Lutte TV di ko ñaanal jàmm di ci woo ñëpp daal ñu ngi ci woo ñëpp képp koo xamante ni seetaan nga vidéo bi ñu ngi la ci woo nga ñëw dooleel Assane Fall taalibe Serigne Fall bi ndax bër bis bisu tabaski la am doom tuddee ko sëñ Fall ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom wallaahi bisu tabaski bii weesu ñuy ñaan yàlla rek. lépp loo xamante ne bëgg na ko ci bis bi yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe na ñëpp yëngu artistes yëpp nañ takku ba dëgër te xam ne Assane Fall la ñu tuddee bis bi te ñoom ñëpp dañoo war a yëngu te Sidi Diop waaw Sidi Diop non loolu force la ay Bass moom damay bàyyi nga wool yëpp wool sa xaritu artistes yi asal wool yëpp na ñëpp ñëw ci bis bi bis moom ku ñëwul bàyyi ko ku ñëw jàpp ko. waaw <laughs> ah, loolu waaw ah, ñi ñi ñi ñi woo képp nga xam ne mu doon suñu soppe ah di jiral suñu waajur di jiral Cheikh Mohamed Fall Mouri ah. di sàkk si moom ndigal di woo waa suba teel yëpp parce que ñoom ñëpp samay famille lañ di woo Sidi di woo Waly ah doon sama frère di woo Sidi Diop ah Omaro bàyyiwuñ kenn ku lim Diop képp nga xam ne maam yaa ngi may bàyyi xel rek séq nañ jàmm séq kóllëre maa ngi lay woo parce que mu limee juum daa ndax li ma li ma uuf yëpp xaw nu mu toll di woo Bastoun waaw ah, di ko encouragé mooy jàmbaar la ah àdduna ñu ngi woo àdduna di woo képp nga xam ne mu ngi bàyyi xel Global Tech si doon sama xarit ñu séq kóllëre séq jàmm maa ngi lay woo di woo liir jaat sama xarit <laughs> ak woo maa koy woo sama bopp waaw loolu moom gars di woo àdduna di woo daa àdduna di woo suñu clients yi di woo yaay global taxi yi hmm, papaay global taxi yi tante yi xale yi ñëpp bàyyiwuñ kenn suma ma limee damay juum